salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yëpp di leen ziara di am mbégte ak contentement ci a ñëwaat ak yéen ci jotaay yi nga xamee ne dañ koy waajalee màggalug daaw salaam euh, commission culturelle bi nga xamee ne euh, waa académie daaw salaam ñoo ci ànd ak waa comité de comité d'organisation bi bi mooy seen jotaalu ñaareel ginnaaw bi nga xamee ne def nañ forum ba la ci Dakar lépp mu jëm gi fàttaliku maam Seex Anta jëm ju tedd jooju ci ak liggéeyam ak taxawaayam ci yoonu murit waaye ci umma islaamiya bépp tey nañu ñëwoon fii ci ëttu kay sëñ Ibrahima Ndar fas yéene ànd ak kenn ci njaboot gi koo xam ne xam nañ ko ci liggéey bu baax a baax xam nañ ko ci taxawaayam ci liggéey lislaam waaye xam nañ ko ci taxawaayam ci jëf loo xam ne day njëriñ yoon wi euh, xam nañ ko ci taxawaayam bu baax a baax ci njaboot gi nga xamee ni fii yàlla boole mooy fexe ba vulgariser Euh, liggéeyu maam Cheikh ak feeñal xamal ne moom xam xam la xam ne moom mooy kan di jëmu ju tedd ji di sëriñ Saalihu Ibrahima Ndaw di ko ñaan boom subhaanahu wa taala taxaw ci sàmm bu baax baax tey ñoo ñëw fi ngi waxtaanee maam Cheikh taxawaayam bi nga xamee wala boog xam gi mu xamoon ne nit ñëpp ay jaami yàlla lan mu fas yéene mën a jëflante ñëpp jëflante bu rafet te kenn du ci am gaañ tom boobu lañ waxtaanee ñu tudd itam maam Cheikh Anta ash-shakhsiyya tawafuqiyya kon duñu guddal dañuy bay sëñ bi mu andi li nga xamee ne moom la ñu waajal boo defee ñu ñëpp ñu maasee diglu ko bisimilah auzu billahi samil alim min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan ci waajtaayu màggal gi di ci sant yàlla bu baax biñ ko fekkeewaat di ñaan yàlla defal ñu ci tawféex defal ñu ci xayrul maraam mi nga xam ne noonu la ko maam Cheikh ñaane woon waxtaane maam Cheikh Anta nag ak ni mu jaxasoo woon ak kilifa diine yi jafe na yomb na mais dafa yaatu ndax li yonent yi wax rek ne al muslim aqul muslimin jullit jullit rek mooy mbokkam moom loolu la doon dund te innamal mu'minina ikhwa faslahu bayna aqawaykum loolu it da ko doon dund mel ni ndono la ci moom ci ay waajuram ndax waajuram wu jigéen ñëpp xam nañu fi mu jaar ci jëflante lu baax ak ñi mu dëkkaloon ba mu gi ñuy ko ñu daan ko dàkkantele yekkale yekkale ngalam ndax teraanga yim daa defal nit ñi te yàlla rek taxoon kon bu maam Cheikh Anta feeñe foofu itam war na mën a jël ci jikko waajuram yooyu ndax moo ko yar rapport yi mu amoon na kilifa yi rapport yu yaatu la ci zaahir ak ci baatin waaye booy wax kilifa diine yi yaakaar naa ni ka cay jiitu mooy cheikhul xadim mi nga xam ni moo nekkoon magam nekkoon xaritam nekkoon sëriñam seen diggante nag yaatu woon te rafetoon tax ma ne ci zahir ak ci baatin mooy yenent bi sallallahu taala alayhi dafa waxoon ni ko cheikhul xadim ne ko maam cheikh na yor sa zahir man ma yor sa baatin loolu rek lu rëy la woon ndax ku yonent bi tegtal nit ne noyor sa zaayir kon kooku du nit koo xam ni dañu naan rek nit ku simple la wala nit ku ordinaire ba tax na mu daan jëflanteeg Serigne Touba ak njabootu Serigne Touba ak ñi mu bokkal Maam Mor yépp jëflante yu rafet jëflante yooyu demoon na ba ni mu yore woon zaayiru sëriñ Touba di ko doxal ñiñ daan wax barza waa barzaq muy waa kër sëriñ bi maam Cheikh demoon na bu ubbi ab bitik njaareem boo xam ni kenn ci taalibe yi kuñ taa sañ Ceerno Jaxate moo ko yoroon te defu ko woon dara lu dul lu sëriñ bi soxla ñu mën ko faa jële lu waa këram soxla ñu mën ko faa jële waaye nag comme rapport diggante nit ak nit dañuy wax ni ñetti cër rek ñoo koy jëf ci doomu aadama mooy cër yi nga xam ni du sax karaw muy sa loxo sa tànk ak sa làmmiñ kon looy jëf la looy dox la ak looy wax ñett yooyu yëpp nag maam Cheikh yaakaar naa ni doon na ko dox diggam ak sëriñ bi diggante njaboot njabootuk sëriñ bi ak ñi nga xam ni sëriñ bi ñoom la njëkk a defar loola jëf na ci lu bari ndax bi sëñ bi sañ ci njaarim bari na kër yoo xam ni maam Cheikh Anta moo fa tabax moo ko tabax bari na ñoo xam ni moo leen takkal soxna am na ci ñu bari ñoo xam ni tam moo yoroon seen njël kon loolu lu doon rafetal diggante la diggam ak diine muy kilifa diine yooyu muy cheikh yu njëkk yi diggam ak sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi ndax boo xoolee noonu mu yore woon ñooñu ba bi muy dem màkka te yàlla wax ci chart màkka yi nii booy dem sa kër war nga faa bàyyi lu ñuy dunde moom ñoo ñooñee nga xam ni dafa leen doon entretenir yoroon leen ba muy dem màkka dafa fexe ba kenn ku ne mu jox la loo xam ni diir muy dem bay dikkaat mën nga koo jaay wala mën nga koo jëriñoo ndax am na ñoo xam ne xaalis la leen jox am na ñoo xam ne matériel la leen jox kon loola tam dafay euh, wanewaat ni rek moom loolu mu doon def da ko doon def ngir diine da ci daan dundal diine noonu mu amee woon ak Serigne Touba luñ ci mën a yaatulu ndax buñ ci day waxtaan rek daanaka day yem diggante day daal di yem ci diggante sëñ bi ak ak ak moom rek te loolu moom rek te mu waxtaan la waaye noonu mu meloon ak sëriñ bi tam noonu la meloon ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal Maam Mor kenn ku ci nekk daan na jëflanteeg moom jëflante bu rafet boo xam ni daanaka ñi ci ëpp ci ca ca njaboot ga maanaam tudde nañ ko doom maam Thierno Birahim rek wax nañ tudde na ko ñaari doom kon loolu nekkin wu rafet la te nekkin woowu dangay ngay gis léeg-léeg taalibe ñoom di di di def wujje entre kër yi te fekk na ñoom ci seen biir rafetal rek lañ daa def dama ciy nettali benn xisa bu gàtt rek boo xam ni ci jamono bi nga xamee ni bekkoor bi dafa bari maam Cheikh Anta euh, fekk li yor yëpp joxe na ko ñu waa Darou Mousty taalibe yi ñëw ñu ne dund manqué na fa waaye kenn ñemewu koo wax maam Thierno te sàq yëpp ña nga fa fees dell ñu ñu am ñu ci rocceeku ñëw wax ko maam Cheikh bi mu ñëwee dafa taal otom ànd ak ñoom ba mu ñëwee ca penc ma layam eggul ca maam Thierno dafa toog ci pénc mi dajjalu sàq yëpp séddale dugub bi ba mu jeex takk doog a ñëw ci maam cero doo ko nuyu na ko ah Cerno man de tooñ naa la mën ne ko noo ma tooñee mu ne ko sa sàq yëpp séddale naa ko mu ne ko yaa ko sañ nga xam ni bi fi sëñ bi jógee itam daamar yim jëndoon dafa ne maam Cerno yow bis ni ki tey bul waxati fenn asalaamualeykum waaye indil naa la oto boo xam ni foo bëgg a dem wala foo am yitte rek oto ba mën na faa dem waaye yow bu fi ti maanaam lu bari mu yoral ko ko noonu moo ko defoon maam Thierno noonu la ko defaloon ñi mbokkal baay yépp kon lool rafetal diine la woon rafetal ak mbokk la woon noonu mu ko defee woon maam Thierno itam ak ay rakkam sëñ Mor Jaara magam nga xam ni moo ko jàngal ba nga xam ni maam tudde na ko doom ah noonu la doon jëflante Cheikh Ibra Fall tudde Cheikh Ibra doom mu daan jëflanteeg moom jëflante yu rafet yoo xam ne ba léegi bataaxal yaa ngi fi yoo xam ni ni mu daan jëflanteeg Cheikh Ibra ba Cheikh Ibra jël doomam jox ko maam Cheikh ne ko yaral ma ko muy sëñ Modou Moustapha Fall. wax nañ ni paalin gii ci Mbàkke ci Daaru Salaam la bokkoon maam Cheikh Anta moo ko dagg may ko Cheikh Ibra kon ñuy jëflante jëflante yu rafet ba nga xam ni sëñ maam Cheikh ci boppam jël na doomam tuddee ko Cheikh Ibra muy sëñ Ibra Astou Thiam kon yooyu jëflante. ci yoon wi la ko tàmbalee noonu la ko jëflanteeg ak ñi nga xam ni ñooy njabootu sëriñ Touba ba ñi ci ëpp ci moom fonk giñ ko fonkoon ndax jëflante ak xam gi ñu xam ni noonu la demoon seen waajur kenn ku ci ne ci ñoom tudd na ko doom muy sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Khadr sëñ Abdou Lahad sëñ Fallou euh, sëñ euh, sëñ sëñ Baara sëñ Murtada koo ci gis rek tudde na ko doom ba tudde ay doomi maam Cheikh Anta doom ndax cofeel goo xam ne doxoon na seen diggante sëñ Saliou daawu toog ñaari fan yoo xam ni du toog di waxtaane maam Cheikh Anta naan Baye Cheikh Baye Cheikh kon loolu rafetal gu mu doon rafetal seen diggante moo tax loola mu mu amoon ko mu amoon nag rapport bu gën a sori ak sëñ Fallou nga xam ni li maam Cheikh doon def diggam ak Serigne Touba sëñ Fallou dafa ñëw noonu loolu noonu da koy dekkalaat nga xam ni na maam Cheikh Anta jëlee woon Serigne tubaab ba mu demee Gabon maam Cheikh Anta jëli ko maam Cheikh itam ba mu nekkee Ségou ca tukki ba it sëñ Fallou nee na ba bor boobu la doon fay si moo ko jël si. waaye noonu mu amee woon nag ak kilifa yi ci yoon wi itam noonu la ko amee woon tam ci biti ba nga xam ni mboolem ñi nga xam ni ay kilifa yi diinañ lañ nekk ci senegal kenn ko ne maam Cheikh Anta amanteloon na ak moom ba pare daan jëflante ak moom teraanga. boo demee Tiwaawan jamono bi nga xamee ni maam Cheikh jàpp nañ ko ba kilifa yëpp di def petition ne maam Cheikh warta dem sëñ Fallou signé na maam Thierno signé na maam Thierno keroog bi muy signé ma nga dàkkantele maam maam Cheikh ne bu fekkoon de ay fas lañu maam Cheikh Anta mooy naaru góor sëñ Mbàkke Bousso moom ba muy signé dafa ne maam Cheikh mooy leeru yoon wi. sëñ fàllu signé waaye xalifa Ababacar si dafa signé ne moom itam ànd naa ak ñoom ci ni maam Cheikh Anta war a génn dëkk bi kon loolu rafetal diggante turuux yi la. ba keroog ba fi Serigne Touba euh, ba fi El Hadj jóge jógee teraanga gam def ndax maam Cheikh Anta lim daan dox ci rafetal da ko daa defal boppam di ko defaaleel sëriñ bi. ndax la sëriñ bi waxoon na ko yaa yor sama saayir fu sëñ bi war a dem wala sëñ bi war fa def teraanga dana fa dem def ko ci turu sëñ bi def ci turu boppam keroog ba fi El Hadj jóge jógee maanaam wax nañ ne géttug nag la chargé ci camion jël beneen camion chargé ci ceeb teg ci 200000 yóbbu yóbbu ko ca dëj ba ca teewaan ba noppi woo murit yëpp nag ànd ak ñoom ne leen nañ ko ànd ak sunu mbokki tijaan yi ndax ay ay ay bokki jullit lañu. kon loolu rapport yu rafet def na ko diggam ak Tiwaawan diggam ak Njaasaan dafa rafetoon rattax ba am na koo xam ni soxna na Nafisatu Kunta ñu jëloon ko dénk ko maam Cheikh Anta maam di dem segu ci soxnaam yi mu yóbbu woon ca la bokk kon loolu rafetal diggante moo ko waraloon am na tool yu mu amoon fu ñuy wax baabuloo ci ginnaaw sookoon mësu faa dem te jaarul Sokone ci kër sëñ ama dem siyaaranteeg moom séqanteeg moom ay teraanga bi mu nekkee eh, tam eh, ndar bi sëñ Touba di dem ndar ci Baye Askamara te dañ wax ni fa la ñu joxante mantob xutbaaniye maam Cheikh ma nga ca teewoon ba sëriñ bi boole kook sëriñ Askamara waaye jamono bi nga xam ni sëñ Touba mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ndar ci biñ ko jàppee muy waar ja dem ci géej gi euh, am na ku ñu wax sëñ Njaay Saar dafa yoroon juróomi ndombay tànk ndar ndax moo doon imam ratib bi moo doon xalif maanaam mën wax xalif jullit yi ndax moom moo doon représentant musulman Afrique de l'Ouest gépp doon ki yoroon daara bi fa gën a rëy yor kàggu téere bi fa gën a rëy ba pare doon kadi ba moo doon euh, kadi tribunal musulman nga xam ne li ñuy wax naan procureur moom ci ci tribunal musulman moo ko yoroon kooku juróomi ndong mbal tànk la yoroon bi sëñ tubaa ñëwee foofu dafa dem ci gouverneur ne ko kii kat defalul defalu leen dara tooñu leen waru leen ko yóbbu fenn gouverneur na ko sëñ bi bu bindee baalu ñu jéggal ko waaye dafa nanguwut a jéggalu njaay saar ñëw ànd ak magi ndar yi ñëw ci sëñ bi wax ko loolu sëñ bi ne ko man naka nañ may tooñ ba noppi may jéggalu daa di rafetlu la mu dox ne ko dey ëmmat njaay maa bi mii nga àndal dana doon seere ni wane ni man mii damay dem damay delsi te danaa ko fi fekk léegi së njaay saar moomu ñaan sëñ bi ne ko dey sell gi nga sell ak fi nga tegu ci siraatal mustaqim su ma sañoon sama waa kër di la toggal ndax togg yi ñu lay toggal te xamuñu fu muy jóge yow waroo koo jëriñoo sëñ bi jox ko ndigal ci loola mu jox benn soxnaam mu di ko toggal ak a fóotal bi sëñ bi jógewaat ci géej gi njaay saar wàcc liggéey sëñ bi dénk gi nga xam ni njaay saar dénkoon na sëñ bi njabootam googu bi Ndiaye saar wàcce liggéey bi sëriñ bi ñëwee soxna soosu la jël jox ko maam Cheikh soxna soosu moo jur sama waajur wu góor muy sëñ Ibra Ndar waaye li tax ma indi ci xisa boobu mooy dafa tax maam Cheikh Anta amanteeg maanaam dignitaire ndar yi ak kilifa ndar yépp ba biñ ko jàppee indi ko ci euh, bi mu jógee njaaram fi ñu indi ko ndar xam ni maam Cheikh def na juróom-ñetti weer ndar ci prison bu ndar laataa ñu koy yóbbu Ségou waaye diir ba muy nekk foofa tabaski ga ko fekk dafa jënd lu ëpp ay téeméeri xar sédd la ko imaamu ndar yi ak ñi nga xam ne ñooy kilifa ndar yépp daa fa organiser ca biir kaso ba ab gàmmu keroog régisseur prison bi dafa ne man de xawma ban euh, lu ma jam ba ma jox ndigal ci ñor ci war ñu war fee gàmmu maam Cheikh Anta moo ko joxoon garanti ne ko loo ciy tiit du ca am ba nga gàmm nañ ba fajar te benn prisonnier rëccul mais diir ba muy nekk foofa dafa amante kilifa yi ndar yëpp te ñëpp xam nañ ne ndar dëkkub diine la woon dëkku daara la woon mu amanteeg ñoom di jëflanteek ñoom ay teraanga diir ba mu fa nekk ba keroog mu fay jóge noonu mu amee woon ak waa ndar maanaam amante gi mu doon amanteeg kilifa diine yi tamit taxutoon maanaam muy e, ñàkk personnalité ci moom ndax noonu mu amante woon ak waa Tiwaawan amante koon waa Njaasaan amante koog waa Ñaseen e, maam Xalifa Ñas amante koog waa Sookoon sëñ Ahmad Dem noonu la amante woon ak waa Canaba te la waral Canaba yi teraanga yooyu muy def dafa am bis tubaab yi waa Canaba gëj a fay impôt bi ñu leen doon imposé tubaab yi wax wax mënuñu see jot ñu dem tëj jumaa ja ne feek fay ñu impôt du jumaa ji maam Cheikh Anta ba mu koy yéegee dafa jubali Cenaba ba mu ñëwee fanweeri ati impôt la leen fay dafa fay la weesu ba pare fayal leen fanweeri at ci kanam kon loolu maanaam lislaam rek a taxoon muy muy def waaye nag ñàkkuloon fulla ñàkkuloon fayda ndax am na bis li ma la wax ni maanaam du romb fenn kilifa diine tegg ko mu am fu muy dem am kilifa gu fa ne damay bañ a tudd tur mu jaar fa di ko siyaare ci suba gi ba mu ñëwee kilifa gën ne ko ah cheikh yow teel ngaa xëy di xanaa da fanaan ci ci wet yi mën na ko déedéet sàllaaw day euh, bawal laa xëyee mën na ko ah loo war mën na ko daamar laa yor mën na ko luy daamar mun na ko luy oto luy tubaab yi yor muy oto kilifa ga ne ko ah cheikh xanaa xamoo ni xaaroon de ak àllam ju bari jaag barke bi lépp yàlla da koy boole dugal safara am cheikh na ko ah wax nga dëgg de waaye Souleymane de ak alal ju bari jaag barke bi bari ba lépp yàlla da koy boole dugal àjjana <laughs> kon lii sëñ bi wax naan nit ki coow du jarul jarul coow jarul xuloo waaye mënal tontu ndax lam daa def tamit personnalité la ko daa def ak dimbalee ak def ko ngir yàlla ak jaamu yàlla boo boo jógee foofu noonu mu ko daan defal waa Sénégal noonu la ko daan defalee tam naari gànnaar yi ci di leen jàppale ndax sëñ Touba naar dañ daan jóge ba mu Mauritanie mu leen di dimbali am na ci xise yu bare bari yoo xam ni bi nga xamee ni sëñ bi waxoon na maam Cheikh yaa yor sama zaayir ba tax na naar bu masaan a ñëw rek lu ci bari sëñ bi bu la masaan di yow dala yebal ci maam Cheikh Anta am na ci ñaar yoo xam ne danaa ko ci nettali benn naar bi moom ba ñëwee dafa sonal sëñ bi ci di ko laaj àddiye te fekk booba sëñ bi nekk na ci xat-xat bi ko ko ñaari yoon sëñ bi dafa ne ku ma njëkk a indil li naar bi di laaj ma jox ko li ne ci naar bi ma maam si bitig boobu ma lay wax ni moom la defoon njaarim foofa rek la daal dem jël la la la nga xam ne moom la naar bi doon laaj ñëw jox ko bi beneen bi naar bi dafa ñëw bi muy tàggoo ba war a dem sëñ bi yebal ko ci maam Cheikh Anta ak ci maam Cheikh Ibra ne ko demal ñu waajal la ne ko boo jaaree ci Cheikh ba mu waajal la ba pare jaaral tàggu Cheikh ba mu ñëwee ci maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta jëli xéewal jox ko mu jaar ci Cheikh Ibra Cheikh na ko ana foo jëm mu ne ko man de damay ñibbi gànnaar waaye damay jaari njaañ Cheikh Ibra ko ah hi njaañ da boo fa jaaree da nga fa yàgg mu ne ko de ñetti fan rek laa fay def mu waxaat ko mu ne ko ah di fa yàgg de mu ne ko déedéet ñetti fan rek laa fay def ba nga xamee ni dem na njaañ def fa jetti fan fa la wàcce liggéey bo ba léegi boo demee ci armée lu njaañ foofu sëñ Mbàkke Anta naar ba danañ la won ni ab shérif la boo xam ni ba léegi taalibe mi dañ fay ñëw di ko siyaare jal bu rëy la yor boo xam ne dañuy ñëw di tibb suuf si waaye bu ñu xëyee suuf sa day day day jalwaat kon maam Cheikh loolu mu doon defal Serigne Touba dem na ba bis mu mu indil ko ay jafe-jafe ci teraanga gi muy séqanteeg ñi muy jëflanteel muy kilifa diine yi dafa dafa am naari jóge marok ñëw di sàkku ndimbal ba mu leen dimbalee ba pare kooku Abdul Karim la tuddoon ndekete Abdul Karim boobu moom ab opposant la ci tubaab yi dafa doon xeex ngir tubaab yi bañ a coloniser Maroc maanaam opposant la woon tubaab yi nag commencé def ay rapport ne maam Cheikh Anta kat ngay dimbali suñuy noon maanaam loolu indil nañ ko ci ay ay ay ay ay jafe-jafe yu bare bare maanaam boo duggee ci ci ci ci ci ci ci archive yi maanaam affaire Abdul Karim lañ ko tuddee indi nañ ko ci ay jafe-jafe yu bari dañoo dem ba ca ba ca ba ca pàndaaw ga nag ñu ne maam Cheikh Anta kat loolee mu doon def rek maanaam lañ daan dimbali shérif yi ak kilifa diine yi nga xam ne dañ fi daan ñëw loolu rek la ci jublu ndax ci dimbali yooyu mu doon def gis nga problème ak euh, tubaab yi daanaka ci li tax ñu jàpp ko maanaam dimbali gam dimbali woon ngalandu te fekk booba ngalandu dafa war a def euh, élection ak Blaise Diagne maanaam amoon bor te mënu koo fay te bu ko fayil du am caution boo xam ni dana ko permettre mu mën a nekk candidat ñu ne ko kenn la mën a dimbali maam Cheikh la tudd bis boobu maam Cheikh jóge fii jëm ndakaaru egg egg egg tëngéej ci gaar bi la ko fa ngalandu koje ba mu ko ko waxee ca ga ca gaar boobu lañu la laaja ay waxande ñu génne xaalis konte jox ko comme ñi ngi ko daan suivre saa su ne rek espion yi dem daan ne tubaab bi yow de maam Cheikh ma ngay financé yow ki nga xam ni moom nga war a euh, euh, defal euh, élection kon nag yow daf lay xeex loola ci la tàmbalee Blaise Diagne di xeex maam Cheikh Anta di ko duural ba bi nga xamee ni eh, ñi ngi mi ngi mi ngi dem eh, foofu ma la doon tudd léegi muy Babulon ci ci ci dafa demoon jóge ca tool ya nag fekk 1928 bi fi sëñ bi jógee laata muy dem Màkka maanaam mm, muritu Banjul yi daal di ko ñaan ne ko suñu sañoon di nga ñëw fi ganañu ndax bi fi sëñ bi jógee ba léegi gis kenn ku ci bokk ci la fa debe ba mu fa demee jax daanaka ca kër ilimaan ba ku ñu naan Ousmane Ndiaye fa la daloon léegi ba mu fa dalee nag coow li bari xumb gi maanaam gouverneur anglais bi daal di ko invité mu dem yendu këram séqanteeg moom ay teraanga bi mu gisee cax meññeent yi ñu ko jox sax dafa ne lii kat moom dama bëgg cax maam ñu wutal ko jiwu mu yóbbu ko ci tool yooyu toolu dër yooyu gouverneur français yi nag dégg loolu yaakaar ni kii moom dafa ñëw def alliance ak anglais yi Ah, te comme ñoom ñaar ay ay ay ay ay noonu lañu ci lañ commencé bind rapport yi ne moom kon dafa ñëw lié alliance ak ñii maanaam pour mën a am ay armes ak eh, xare yi mu war a def ak yu mel noonu kon euh, jëflante googu mu doon def moom da daf ko daan def te du ci xaar dara maanaam nit ku nit muy kilifa diine muy kilifa aada muy kum ma doon ku sàkku ci moom ndimbal rek maanaam dana la dana dimbali ba bi nga xamee ni. mi ngi dem màkka comme ni ma la ko waxee woon léegi dafa dimbali kilifa yi nga xam ne yëpp dafa yoroon seen kër waaye bi muy dem wax nañ ni yóbbaale na lu ëpp quatre-vingt-quatre personnes te amoon na ci ay kilifa am na ci ay commerçant am na ci ñoo xam ni daf leen yóbbu ne dama bëgg yóbbu leen ngeen jëndaale ay bagaasu màkka mën koo indaale Sénégal waa Sénégal mën koo barkeeloo am ñoo xam ne ay commerçant lañ yoo xam ne ñu pertoon lañu mu dimbal leen jox leen xaalis pour bu ñu demee jaay ñoo mën koo delloo am ñoo xam ne ba mu demee ba foofu ñu fa cangoon maanaam daf leen paasal indaale leen te xam nga maanaam dëkk dëkk dëkk araab yi ba léegi sax boo fa demee bu sa visa jeexee rek boo génnul dañ lay teg ay dañ lay teg ay taxes naar yi nag moom boo cangee foofu loolu mooy loolu bi mu demee ba màkk ni mu daan dimbalee Sénégal daanaka noonu la fa doon dunde ci Medina comme ci Màkka képp koo xam ni nekkoon nga Medina nekk ci bërëbu yonent bi ndax 1925 xam nañ ni délégation jóge nañ fii jóge jóge nañ Medina ñëw sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ bi dimbali leen maam Cheikh Anta moom ba mu demee 1928. fekk na ñooñu xam nañu lan mooy euh, mouridisme xam nañu kan mooy sëriñ tubaa xam nañ ñan ñooy mbokki sëriñ tubaa ba tax na bi ñuy diir ba muy nekk foofu ñoom ñëpp dañu doon sàkk ci moom dimbal waaye nag da ca doon jaamuwaale yàlla ne diir ba mu fay nekk ñi nga xam ne ñooy toppatoo bérébu yonent bi maanaam diir ba mu fay nekk moo leen di fay ña nga xam ni ñoo fay jàng kaamil diir ba ba mu fay nekk kenn ku ci ne ci ñoom lañ war a am moo leen koy jox ba mu demee màkk itam ña yor kaaba ga di ko toppatoo ñooñ ñëpp maanaam noonu la leen doon toppatooy kon maam Cheikh Anta li mu doon def amu ci woon xej ak seen moom euh, ku mu gis rek ni ko yonent bi waxee sa jëmm da koy jis rek ni jëmm yonent bi la da ko war a dimbali waaye nag ni mu doon jëflanteeg nitu diine yooyu dafa dem ba dafa amoon jeexital ndax bi mu fi jógee am na loo xam ni xëy na tët ñu bari masuñu ko masuñu ko xam sax mooy li ñuy wax ndaje bu amoon Daaru Salaam fii boo xam ni dañ ne maam Cheikh ni mu dafa ndax maam Cheikh dafa daan wax ni bëgguma ñun kilifa diine yi tubaab yi di ñu jaxase waaye bëgguma itam ñun ñu dëngoo tubaab yi di ñu jubale dafa dafa dafa ne woon dama bëgg ñun lu ñu war a lijjanti ñu lijjanti ko ci suñu biir te kenn ku dul jullit bañ a xaj suñu diggante loolu tax bi nga xamee ni jóge na fi ba amoon ndaje loo xam ni dañ doon def conseil euh, consultatif musulman dañ ne nañ ko defee ci Daaru Salaam ndax maama Cheikh Anta loolu moo doon yéeneem euh, ndaje boobu euh, waa kër xalifa maam xalifa ñas ñëwoon nañ taawam ab Babacar Niass sëñ ab Aziz Sy mi ngi fi woon sëñ Cheikh Mbacke mi ngi fi woon sëñ Fallou mi ngi fi woon sëñ Ahmad Dem bu Sokone mi ngi fi woon waa Ndiassane ñi ngi fi woon bañ fi ñëwee ba ñu waxtaanee lan lañ waxtaane woon dañ ne ñun kat nañu tënk document boo xam ni lépp loo xam ni luy am Sénégal la ak lu mu mën a doon il faut ñun ñoo ci joxe sunu avis ñoo ci joxe suñu xalaat ba loolu mën a dox même bu dee maanaam dañuy voté pour président de la république sax conseil musulman boobu da cee war a jox xalaatam kon kooku maanaam mi ngi nekkoon en avance ci jamono pour wan ni ne mu'minu iqwa jullit yëpp benn lañ waaye nag euh, rafetal suñ digganteek ñun ñi gëm ah maanaam loolu rek la doon dox loolu rek la doon dund bi nga xamee ni bi nga xamee ni yooyu yëpp am na ñun dañoo war a jàng ci maam Cheikh ñun lan nan lañu war a mën a tegoo ci tànkam ndax jamono ji nekk na jamono joo xam ni nit ñi saasu ne ñi ngi véhiculer ay message yoo xam ni duñ ko teg fenn te yàlla dafa wax ni bu xabaar ñëwee saytu leen ko balaa ngeen koo yaatal waaye loolu dama ci profité pour dugg ci ni nga xamee ni maanaam internet bi ni mu mën a defaree noonu muy yàqe ndax dinga nga gis xabaar bu ñëw doo xam xabaar nu mu xabaare maanaam nga jël yaatal ko bu dee aw fen la yow la nga ko yaatal lu mu toll rek fen nga lu ni toll te maam Cheikh Anta nam daan doxee dafa daan am ay conseil ndax moo tax ñu bari jàppoon ne buurub diine la conseil yi mu daan am dafa amoon conseil ci wàllu arab am conseil ci wàllu français am conseil ci wàllu politique am conseil ci lépp loo xam ni même boo demee ci présidence da ngay gis ñoom ñëpp dañu am conseil yu mel noonu parce sëñ Tuubaa dafa daan wax ni nit ki bu jiitee mbooloo na wut ku koy xelal waaye na doon mbokk na doon boroom xam-xam na doon mag te bul yor këram maanaam moom buggul woon ku koy jay boo ko masaana wax dara sax bu ko bu bu bu ko nanguwut fasaasa it bu génne dana ca xalaataat ndax boo xoolee ba muy dem màkk te woo mën sëñ mën njaay jóob ne ko man de damaa bëggoon dem màkka doon la ci laat xalaat lu mu ko wax te ngaa seet sëñ ibrahima dia moom de am na kàttan te dana la fa amal njariñ mu bàyyi ko ba mu dem mu woo sëñ ibrahima ja ne ko man de damaa bëggoon a dem màkka te doon la ci laaj xalaat mu ne ko te ngaa woo mën njaay jóob moom de am na xel te jàng na te am na xam-xam te dana la fa amal njëriñ kon noonu nga xam ni da ko defoon jàngal mag ñooñu yar leen ci bëggante yaakaar naa ne loolu ñun dañ cee war a jànge muy bëggante gi li ñuy wax naan bëggante soppante wóolante dimbalante bis bu set ñi ngi koy wax ci suñu biir mais duñ ko jofe ci suñu làmmiñ rek la yem kon maam Cheikh Anta daal lañ ci mën a jànge mooy xam ni jàngal nañu àddina li nga xam ni moo doon yoon wi muy liggéey ak jaamu yàlla teg nañu ci ñu bari nag dañ koo réeral ci alal ji rek la ñuy gis waaye alal jooju defal doon loo xam ni alal moom matériel rek la te yàlla daf ñu ko terale wala xat karam ba ne aadama wa amal naam fi lbarri wal bahri wa razanaahu min atayibat wa fadalnahu ala kasir mi man qaala xanaa tafdilan kon lu ñu yàlla terale lu ñu yàlla terale dañ cee war a jaamu yàlla ndax alal ji boo ci jaamuwul yàlla mooy ci yàlla alal ju sell mu di ko liggéey jël di ci def social di ci taxawal lu baax ndax boo xoolee exemple Touba Touré rek tubaab yi bi ñuy bi ñuy bi ñuy xalaat lool di ko def muy euh, li ñuy wax régularisation des prix amoon na sax maanaam lu ñu naan wax euh, caisse de péréquation jamono bi ñuy defar ceeb bi maanaam loolu moom Cheikh ba mu koy xalaat booba kenn xalaatu ko loolu mooy régularisation des prix fexe ba prix yëpp tolloo ba nga xam ni bu bu bu bu bu ñëw tubaatul ñu ne ñu ne ñu ne kii kat yokk nañu yàpp wi di jaayee kilo 2000 day daal di jënd nag ne nañ koy jaay cent maanaam ba ñiy jaay nag yi ñëw ne ko ah Mbàkke ñu jaayatuñ dara mu neen wàññi leen rek bu ngeen wàññee rek man ba ba ba nit ñi mën koo jënd man ma bàyyi. kon wutul woon xaalis mais da doon fexe lu dimbali doomu aadama yi noonu la daa defee bitig yu mel noonu yoo xam ni am na jamono yoo xam dañ Sénégal créé na li ñu wax magasin témoin magasin mooy loo xam bitig boo xam ni dañ naan prix yañ fay jaayee mooy prix yi ñu war a jaaye fépp bu amoon bitig yu mel noonu yoo xam ne dañ daan jaay lu cher maam seexante day ñëw ubbi bitig bu mel noonu wàccee prix yëpp ba nit ñëpp mu jàppandi ci ñoom ba bitig yëpp mën a maase ak moom mu doog mu doog a tëj bitig boobu kon lañ ca mën a jànge daal moom mooy nekkaloon na fi diine gi amal tele woon na ak kilifa diine yi amante woon na ak jullit yi daan leen jàppale ci seeni soxla zahir ak baatin mais benn bu ci ne ci yooyu rek buñ ko yaataloon mën nañ fee fanaan waaye rek ñu mën a jàngat ni maam Cheikh Anta ñëpp la amante te xam ni jullit nag loolu rek moo ko war amanteeg mbokk jullitam du tee nag la nga gëm ak sa pas-pas nga téye ko bu dëgër ndax Senghor dafa daan wax naan enracinement ak ouverture maanaam nit ki li nga am da nga ci sax sax bu dëgër ubbeeku nag ba leneen loo gis te mu am njëriñ te dagan nga mën koo dolli ca la nga am bu ko defee loolu mooy tax ngay mën a yokk mooy moo tax ngay mën a jënam kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waxtaan am solo woowu demel ne tey jël nañ bind bu yees ci jëmm ju am solo di maam Seex Anta bokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu Euh, bu ñu la dégloo bu baax a baax daan xam ne xam nga li ngay wax ci jëmm ji nga doon wax it wax dëgg nit la woon koo xam ne ko amoon taxawaay la ci lislaam waaye ko amoon taxawaay la ci yoon wi euh, gis nañ taxawaay bi nga xamee ne moom la amoon ci euh, Cheikhul moom mi nga xamee ne moom mooy léppam fi mu ko féete woon nga tudd ci ay exemple yu am am solo aw ci maam Thierno ci sàq moom nga joxe exemple aw ci maam Serafal tuddee nañ te kenn kenn ku ne tuddee sama doom loolu euh, lu am am solo la noonu it la ko defee ak yeneen ñi nga xamee ne euh, ñoo seq yoon wi euh, tudd nga it bi nga xamee ne natt boobu borom subhaanahu wa taala mi ngi koy wàcc mi ngi koy wàcc ci moom mu war koo génne yóbbu ko ségu kilifa diine yi nga xam ne taxawaay bi ñu ci amoon ci fexe ba mu toog bañ a dem tudd nga ci sëñ Babacar Si di amoon taxawaay bu am solo waaye ne moom àndul ci muy dem loolu lépp mu am lu muy feddliwaat ak euh, këllooy gu muy mettali lu mu muy gu muy mottali mooy taxawaay bi nga xam ne maam Cheikh amoon na ko ci bi nga xamee ne waajuram bàyyi ko na fi ci 1922 ci Sëriñ Tuubaa yabaloon ko fa mu am ca mu def ci teraanga ju am solo ju am solo jooju noonu it la continuer euh, ci njaboot gi euh, yamalu ko ci biir njaboot kese mais ba mu demee Màkka gis nga taxawaay bi nga xamee ne def na ko fa ci fexe ba ñi nga xamee ne ñoo doon saytu kaabu gi te mooy néegub yàlla boobu te Seydina Ibrahim tabaxoon ko ci ndigal boom subhaanahu wa taala mu fexoon ñi nga xamee ne ñoom ñoo ko doon ñoo fa doon liggéey di ba mu fay nekk mu di leen fay ngir barkeeloo ko waaye ngir liggéeyal ko lislaam waaye ngir dimbali nit ñi kon da gis ne gis nañ personnalité maam sant bu baax baax gis nañ grandeur ci def lu baax ci bañ cee ca yàlla rek tax ah, ci bañ ci am benn xaji seen ah, kooku moo nekkoon maam Seexanta di nekk ci kenn ci kenn ñi nga xamee ne ci école Seexul Xadim lañ leen génnee Seexul ah, Xadim tàggal leen Euh, kon day mel ne lii moo nekkoon plateau bi nga xamee ne moom lañ leen a andil wala doon ci ànd ak sëñ Salif Ibrahima la di ko sant bu baax a baax ci turu commission culture bi nga xamee ne ak commission euh, d'organisation bi nga xam ne ñoom ñoo seetu màggal gi ci disponibilité ak ci taxawaay bi waaye loolu lépp mu xam ne moom maamam la koy defal euh, liggéey la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko ñoo ci maase ànd bokk di sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo teewoon ci jotaay bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dellu si ñoom jël si waxtaan wi di leen jox dig daje. ba dimanche incha allah ci conférence bi nga xam ne war leen koo amal fii ci pencum Daaru Salaam mi ñu war waxtaanee euh, alwasatiya fi tatbiqi taalimi Cheikh al Xadim maam Cheikh Anta namu sa jan ca sëñ Fallou Bousso assen woo ko def kon ñu lañ jox dëjee ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.